jëfandikoo lañuy teg ci yoon looluy dëgg parce que moom la alxuraan tudd <laughs> waaw tudd na yooyu yëpp ne ne fësta ni boobu bàyyi leen ko kon yow jullit bi boo ko déggee bàyyi même sàngara bu dul sax jullit nga nekk nit ku bëgg sa nitee sax war nga koo moytu parce que day yàq nitee dalay dalay perturber sa wax du jaar yoon te kaay ma wax la nag kaay ma wax la lëf bari na kuy waxti da koy jëfandikoo na leer bari na lu nit di teret yaa ngi def leen bari na koy wax te danaan suy maa la ko wax bi ci des ñu dem nag ci wàllu nag dama dem benn gàmmu waaye yow ma yegg fi ma dal heure bi jot ñu jël si ma damaa yegg si fekk benn góor benn jigéen benn góor benn ñu wër ña koy woy sunu kër lañ jóge ñuy mbalax yëf yu xumb lool ñuy woy bëgg tëgg taabal ci Cheikh El Hadj Abdou wax na ko bàyyi leen mbalax mi bàyyi tama yi bàyyi gitaar yi bàyyi ndënd yi te ngeen woy ko char soo demee ci tànt yi ñuy woyee diine fekk fa pecc mi soo demee ci musique ba fekk fa pecc mi pecc mi dafa yaatu dafa yaatu dama ne boo demee ci péncu diine fekk ko fa parce que defe nañ ne tànk woyuñu woyu xum jigéen ñi tëb góor ñi tëb ñu sa mbaxloo waaye guñu kon il faut ñu boole ci suñu bos ñun de ñun waa daara bi il faut eh oui ndooy waxtaan wax dëgg ca la nañ ci boole bi ci tànt bi boole ci bi ci gàmmu gi boole ci bi ci conférence bi boole ci bi ci cérémonie diine bi mbalax moomu ak góor jox jigéen loxo nañ ko ci boole. góor jox jigéen loxo nañ ko ci boole akolaatante nañ ko ci boole. affaire yi dafa réel def ne rëjëx yi fi rëq bari tànk bi dafa rëq damm foxoj dafa rëq damm foxoj ma ñëw ca tànt ba di wax waa ji ne ma peccum madina ma ma ne ko booba booba yàlla da cee wax agum dara yonent bi di gan dana fekk dëkkub jàmm mu fay araamal yow da xam li ngay wax kon wax leen ne yiñ war a régler dafa bari bëri ñu ñu liggéeyloo fayuñu leen ñu ngi daw ci gannaaw ñu leen liggéeyloo buñ demee ci yoon duñ am doole parce que moom yor na alal alal di nga fay avocat baa nga neexalee ko ni doo ko avance ji naxanteeg ñoom ulloo leen fay mais dëkk bi li fi ne ci erreur dafa bari nañu moytu jël dorog euh, dorog bii di ko sëlëmee nit ñi waaw bu ñu tuddee affaire góor góor ñuy séyante ñu indi dorog dóor ci kaw te am na élément yoo xam ne loolu rek mooy seen adduna c'est pas normal boole leen lépp nañ ci boole lépp lekk riba triyande ndax nit ñi wax loo gëmul di tappale yëpp nañ ko ci boole ndooy yooyoo ngoog bu ne am na àtte nag sàngara quatre-vingts yar la bàyyi ko xel njaalu téeméeri yar la boo mariyewul soo marié rey mooy àtte ba góor ñuy séyante rey mooy seen àtte góor jigéen mbindeef la day am li góor am am li jigéen am ñu ne góor la jigéen moo tax miraasam di indi problème ndax kii miraas dafay miraas ñaari jëmm borom sikkim ak borom musóor lay lay miraas laafa ak musóor la bëgg boole ñu ne góor jigéen de góor la jigéen mu boole laafa ak musóor loolay problème bii mbindeef la bële jëf la góor ñuy sëyante la yàlla wax mooy lóot loo góor gu sëy ñaari góor yuy defante di sëyante fa cabinet yi génnee looluy lóot seen àtte mooy jam ba ñu sedd guy dañ ko nangu buñ bàyyeeti dara am rek ñu indi benn àtte ñu àtte bi yàgg na fi ñu bëgg a jël beneen dóor ci pour camoufler bi pour lan charia ko indi rey la wax dorog bii ku koy tux lañu àtte jàppaguñ ko ko ko jaay te boo jàppul kiy turndooy nooy gisee ko ko jaay parce que euh, kii rek la def par escalier la il faut nga gis kii tux Iran boo ko jàppee mu ne grand sëriñ ma ko jaay nga téye grand sëriñ mu ne ndooye ma ko jox nga téye